asalaamaaleykum mbokku internetu 5 TV nuyu nañ leen di rafetlu wala chaque jour seen ànd ak seen déglu saa yu ñuy defee journal ak décortique comme niñ ko baaxoo di def saa su nekk dañoo ñëw tey rek si seen rubrique décortique bu soxale série bii di infidèle euh, infidèle nag waxoon nañ leen ci wala indi woon nañ ci ay jàngat sax samedi bee ñu weesu tey nag dañoo ñëw spécial ngir mën a wax wala relever séquence yi gën a frappante ci série bi wala sax ci épisode bi nga xam ne moo jàll ci samedi bi di nekk épisode 7 nag luñ a jàngat rek mooy gis nañ ci benn regret ki nga xamante ne mooy Sofia nekk rakk ci ki nga xam ne mooy Adelaide ginnaaw ba mu amee benn relation bu mu seexal ak jëkkëram donte sax moom magam Adelaide mu ngi am ci moom confiance ba mu jógee ci voyage bi yéen a ko gisandoo mu ngi koy remercier mu ko toppatoo foyam ak jëkkëram boobee sax moom mii di Adelaide yëgut li xew ci noonu ñu gis tamit benn sequence boo xamante ne touché na ñëpp ñu ngi koy seetaan mu nekk ki nga xam ne mooy Jibril nekk photographe bi ak bi nga xam ne moom la am

boo xamante ne day attirer les hommes ñëw na foofu ngir mu defaral ko désormais lépp lu yàqu ci oto moom mi eh, Ousmane moo ko koy defal léegi nag kii di rakam tombe da mu daal di woote ngir mën a jël si xaalis ñuy laajte ndax loolee nag ak coono bi nga xam ne Ousmane mi ngi koy daj ak xaalis bi nga xam ne rakam mi ngi koy laajte ndax un jour du am ba mu ñëw daal di nangu yi nga xamante ne mooy proposition yi ngi koy waxal benen tamit mu am mu nek femme bo xamantene eh, dalay provoquer ba ba ci bir dal dila bay est ce que lolu dina meuna dal ki nga xamantene eh, moy bili parce que mom liko ñor moy jigen ku yiw ko xamantene eh, dafa tie la mañam te lu mu wax rek mu dal diko defé benen séquence bo xamne tamit touché nañu gis nañ ki nga xamantene tamit moy ke. Ousmane wala sax ñu gën ko xam ci que bili lañ meuna wax encore une fois rakam mi ngi jangi waye kenen ki nga xamne moy jël bata mom la nek ci kër gi gis ngeen mi ngi pousser parce que moom mii di rakamam jaar mu daal di wax ak Ousmane mu daal di nangu yenn proposition yi nga xamante ne nit ñaa ngi fi ñëw di ko ko proposé waaye loolu yëpp dafa fekk ne kii di moom nag euh, nangu wu ko. keneen ki nga xam ne jaax na mooy ki nga xam ne mooy euh, Adelaide di Bachir gis ngeen nag action yu muy def. Euh, moom mi ngi nekk ak rakku jabaram ba pare euh, yëmu ci mu amoon erreur bu am seen diggante mais gis nañ ba xale bi jógee école di ñibbisi fexe na ba convaincre encore ba daal di ko yóbbu feneen ñu daal di fa foowi mu mel ni lu muy def da ciy joué double rôle te bëggul jabaram xam ko waaye ci biir séquence bi gis nañ tamit nag jabaram découvrir na benn préservatif boo xamante ne fekk na ko ci lal bi mais gis ngeen góor ak i pexem bu la naree nax jéem na woote téléphone ne xaritam la aaloon vestam ngir mën a réeral jabaram foofu tamit damay laajte poser question yenn internet yi ba xam na ndax ne tôt ou tard euh, kii nga xamante ne mooy Adeline dina parvenir à comprendre wala sax di xam relation bi am diggante rakam ak ki nga xam ne mooy jëkkëram nan lay def pour mun ko xam soit day observer wala day am benn vigilance bu baax ci rakam ji gën a surveiller jëkkëram wala day tey ba dem nànk ba euh, série bi du ñu ko woon beneen tamit boo xamante ne tamit am na mooy ki nga xam ne nag mooy Ousmane euh, mooy Jibril nekk photographe bi ki nga xamante ne moom la bëgganteel di euh, ki nga xam ne mooy Djilane Faye moom dafa am jëkkër te jëkkëram ba tey jii day susuwee ci moom waaye loolu seetlu ko ndax moom instant bi dafa am benn obsession ci moom loolu nag li ko firndeel mooy ginnaaw ba mu amalee ay photo yi nga xam ne photo na ko elle parvient plus à dormir moom lay xalaat loolu tamit ba ci laajte benn question yéen internet yi ba xam ndax la femme mariée am na koo xamante ne du sa jëkkër loolu laaj boobu laa leen di laaj xëy na beneen séquence bi bu ñuy wax gis nañ tamit euh, keneen koo xamante ne mooy ku jigéen ki nekk gel ci edu gis ngeen rôle bu muy joué moom day dem récupérer xaalis ñëw jox ko ñu daal di faj seen soxla loolee nekk séquence yi nga xam ne ñoo gën a euh, frappant ci frappante ci série bi wala sax ci épisode bi jàll kon nag mbokk yi saa su nekk rek mun mënuñu wax lépp li nekk ci série bi dañuy seet rek séquence yi nga xam ñoo ci gën daal di poser ay questions euh, sama question bu njëkk damay laajte ci ce que la beauté de la femme lui permettre d'avoir tout ce qu'il veut ndax nit euh, taaram jigéen taaram mën na ko permettre mu am lépp loo xam ne euh, dina ko bëgg beneen question bi mooy kat yi mi nga xamante ne wala Adélaïde comme nañ ko gën a xamee ci série bi ndax. dina mës a toog ba découvrir nan lay def ba mën a découvrir ki nga xamante ne mooy mooy la le vrai visage de Bachir donte sax mi ngi koy won ak ki nga xam ne mooy rakkam mu nekkoon nag loo xamante ne tey jii mën nañ ci wax lu bëri ndax série bi gudd na dañuy seet lu gën a importance ñu wax ko xanaa ñu leen di bàyyi ngeen répondre question yi waaye tamit seen contribution si euh, kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati di ko jëmale ci série bi képp koo xam ne am na loo ci sànni muy euh, commentaire wala sax euh, loo war nañ ko defaraat ci communication bi tamit ñu leen di ubbil yoon bi ngeen jàll fa ñu ngeen mën a corriger wu suñu bopp ñu ñëpp kenn matut yàlla rek moom mat quand on fait des erreurs si la ñuy parvenir à nous rectifier donc duñu def dara di leen jox dig daje ba ci beneen épisode bii di ñëw mu nekk épisode 8 ci série bii di infidèle jaajëf te di leen waaye di leen sant chaque jour wala di leen waxaat ngeen continue di abonné suñu chaîne bii di 5 TV